jullit yi lool yi ngeen jàkkaar lool mooy ñetti bayit yooyu yi mu ngi bàyyikoo ci mbind sëriñ tuuba mu wax ne bismillahi rrahmani rrahim wa qaddimi wa qaddimi l oxra ala dunyaaka in kunta taliban rida ولا يحل ما حزته من نعم تنفض بينك وبين المنعم واستحي من نظر ربك الكريم فعدم الحياء شيمة اللئيم نيت بيد يوي جيلنا سما سيرين سيرين عبد الرحمن عبد القدوس مباكي ما دار المعطي مي خم mu wax ne képp ku ko xool doo gumba insha allahu képp ku xool bayit yooyu nga xool sa ba tege ci wax na ne doo gumba ñu ko jële ci Serigne abdourahman mbakke looloo taxoon nag nu bëgg koo yaatal ba mu yaatu lool su ko defee rek mbokki jullit yépp man cee jariñu Serigne Touba rek ay ngeeneelam dafa yaatu ba kawe kawe kawe ba sunu borom rek moo xam namu toll kon daal euh, képp koo xam ne sa bët tege na ci incha allahu dootoo gumba bu soobee yàlla ñu ngi ko jëlee nag ci sunu sëriñ sëriñ Abdourahman ndax sayidna Aboubacar Aboubacrin Chadiq dafa waxoon ne inna diinana mabniyun ala naqli laa ala munasabatil aqli daa waxoon diina ji kenn du wax rek dem sa yoon waaye lépp looy wax da nga toxal tuxal wax ne maa ngi ko jëlee ci diw te kooka nekk ku ñu xam ku wér su ko defee ko jëlee ko ci keneen kon nag noonu li nu wax mooy ni nga ko jëlee ci sëriñ Abdourahman moom ci boppam moo nu ko joxal boppam kenn yoxuñu ko dégguñu ko ci kenn moom ci boppam moo nu ko joxal boppam moo ko bindal boppam moo ko waxal boppam ah, moo tax nag ñu bëggoon bokki taaliba yépp jot ci bu baax a baax ndax njariñ li gën a yaatu noo ngi ñaan suñu borom subhaanahu wa taala képp koo xam ne yaatal na ko suñu borom def ko ci sa téere jëf. te suñ sëriñ Tuubaa xaadimu rasuul nangul la sag taalibe ci baaxu sëriñ Tuubaa wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh wallahu ala ma naqulu shahid amul benn bëgg-bëgg wala benn yitte wala benn xemmanteef wala lenn benn jullu pour sëriñ Tuubaa